ministre ñu ngi leen di nuyu kilifa yi nga teew yëpp sëñ bi ñu ngi sàkku ci cahier de sollicitation bi nga xam ne moom lañ doon liggéey ak gouverneur Kaolack waaye ñun ñi nga xam ne ñoo doon joñ jokk moom ak préfet bi aussi yi nga may ñu rek yëkkati ay kàddu mu demandé moom mu jël ci moom gouverneur bi dem Ousmane ak ñam doon liggéeyal Kaolack yëpp ci rafet boo xam ne doon na rafet suñu jëflante ak ñoom. suñ gouverneur bu bi di ko di ko ñaanal mission bi mu am ci totale euh, di wax rek ci bi dañu commencé fi nga commencé ñu 100 nga def 150 ki doon sax na li ma bëggoon parce que bëggoon également ñu ko mais satisfaction totale lañ ci am. ci premier point boobu ci affaire sécurité ak mobilité li ñu xaw jaaxal wa Ageroute ñu ngi def liggéey bu baax Kaolack fi nekk nii di fatt li yàqu ci tël yi mais jafé jafe bi ñu constaté diggante démb ak tey mooy bu tawee dafay am loo xam ne dañ ko defaroon mu yàquwaat loolu nag ku nekk xam na ne jafe-jafe bu ajuwut ci ñoom la waaye nag comme yéen ñi leen suñu autorité dañ ciy attirer seen attention rek pour ñu xool nuñ koy saafara ndax dafa am importance pour nit ñi mën dem di ñëw euh, sans problème ci beneen wàll loo xam ne bëgg nañ cee wax pour tënku ci euh, procédure bi nga wax dégg nañ waa SEN'EAU ñu ne ci ñaar fukki kilomètres yi ñaanoon ñun ñoom ñetti kilomètres lañ ci mën a maye. Euh, foofu si ñu ngi baamtu ñaan gi buñ ko mën a yokk moo ñu gënal ndax kër bu nekk ci dëkk bu mel ni Kaolack te amul ndox ci at yi ñu toll 2024 rafetul kon lu ci état mën a dimbali population bi dimbali ci Médina rek nga xam ne ña fa dëkk si bëgg sëriñ bee tax ñu tox si foofa. kon ñu ci mën a yokkal li bari ñu koy ñaan pour ñu euh, yokkal ñu ko ci waaye foofu balañ koy romb dinañ teg suñ baaraam ci ñàkkam ndoxu Médina euh, fan yee ñu passé ñun ñëpp dañoo seetlu woon ne ndoxu Médina bi dafa safan xorom boo koy jàppe biñ demee jege service yi yore ndox mi ñoom ñu def seen gëstu ñun ci xabaar yi ñu jot dafa am château boo xam ne dafa amoon problème

waaye foofu ci wàllu Sen'Eau damay wax ne bala ñuy jàll dinañ gërëm waa Sen'Eau ndax gàmmu gi daaw heure bii eh, su ma ko mënee tuddee quartier résidentiel u Médina bi mooy jumaa ji fi mu nekk ak kër yi ko wër dafay ñàkk ndox lool ñoom bi ñu ko waxee daaw ñu ñëw bu ci kër xalifa bi constaté ko dañ faa defoon effort boo xam ne moom laay li naay gërëme parce que dañ fa def ay réservoir monter ko ay appareil yoo xam ne problème mu ndox amatu doon moom këram waaye nag xam nga loolu boo ko defalee kilifa ci biir dëkk mu ngi séntu ba defal ko ñëpp parce que dafa njëkkoon te ñëpp ni mu ko mën a defalee ñëpp nag mooy saafara problème mu début wu ndox mi boo nga xam ne ñeneen ñi du ñu am problème bu mel noonu. lu mel noonu tamit su nekkee mën ñu ko defal ci jumaa ji ñu ngi koy ñaan ndax jumaa ji mooy bërëb boo xam ne képp ku gàmmu si Medina rek bu nga bala ngaa nga yegg fa ñi nga xam ne amuñ fenn fuñ dal wala ñu ngi nekk ci parage yooyu fan yooyu bu ñuy yeeslu di jàpp yooyu consommation ndox bi li ma bëgg wax foofu mooy bëri ndox mi dina fay manqué daaw Euh, abaloon nañu ñetti camion trente mille litres yu sapeur pompier camion bi ñu taxawaloon foofu ci jumaa remplir nañ ko ñaari yoon ñetti yoon pour wax la rek demande ndox mi ni muy mel période donc fii point bi loolu taxoon ma bëgg ci taxaw monsieur le ministre pour attirer seen attention beneen point bi ma bëgg a taxaw mooy affaire assainissement bi fii nii euh, ñu ngi sant yàlla am na ay at ñu fi ñëw affaire assainissement mos ñoo romb fukki camion ak juróom yu jóge ci état central bi ak juróom benn camion ñaare yoo xam ne mairie Kaolack moo ko doon jox mais loolu damay comme dañuy sàkku ni ba lu ñu joxe dinañ ko doy loo mais tekkiwut ne dafa doy nit ñi comme amuñ dañuy dimbale bu ñu joxe dañ koy jël mais ci cahier bi maa ngi fàttali rek ne 900 rotation lañ ñaanoon ñun ay rotation lañ ko ñaanoon moom nag dafa quinze camions 4 jours

xam nga rythme bi ngay vidé fos ci nord bokkul ak rythme bi nga koy vidé ci ci ci ci nawet euh, ci walu environnement environnement affaire aux et lettre bi ñu ak cahier de sollicitation bi euh, mat lañ ci laajoon parce que ndokk taal bi nek nekk région Tamba ñom ñooy jënd mat convoyé ko ci ay oto pour ñu indi ko mais depuis daaw dafa am demande ak insistance que jigéen ñi fi mu nekk nii nangoo ci ñoo toggee dëgg dëgg matt bi du nanguwuñ ko sax mais fourneau yi ñuy defar fourneau yi utiliser këriñ la et non matt moo tax autorisation boobu ñu doon ñaan ñu booleel ñu ci euh, këriñ ci wàllu santé wàllu médicament yi dégg nañ di waa ministère de la santé wax 10 euh, millions lañ doon indi Kaolack mais ma préciser monsieur le ministre ne 10 millions yooyu du doon doon pour Médina rek parce que yeneen gàmmu dañuy am Kaolack 10 millions yi région médicale bu ñaare 8 millions moy ñëw Medina té 8 millions yoy ñun dañu jàpp dafa touti trop par rapport ak besoin wu gàmmu Medina bi nga xamné ay professionnels ñom ñoko estimé à 36 millions yone ko noonu te defewuñ ko dara lu dul ko ci structure de santé yi pour que consultation yi mëna a consultation gratuite pendant les jours du gamu ci CRD nag dégg nañu raison médicale ñom joxé won 3 jours avant 3 jours après euh, moo wax ñu ngi insister waat bu baax ci côté médicament yoy noonu

nit ñi dañ xam ne ñun ñooy yëngatu ci organisation gàmm gi ñuy ñëw ci ñun parce que bëri na ay kër yoo xam ne li ñuy dalal ci gan gàmm amul moyen entretenir leen ñooñu ñooy ñëw ci comité bi souvent di laajte ndimbal kon li mu wax ne dinañ jël contact ak préfet pour xool les familles vulnérables ñu ngi koy wax ne ñu ngi gërëm lool mais ñu ngi koy ñaan mu associé ci comité d'organisation bi comme ça cible bi nekk cible boo xam ne dañ ko identifié woon ak ñun ñi nga xam ne ñooy organiser gàmm gi pour permettre les liens liés à l'ANF pour que de la n'est Si mon blé son nom. la communication, tu y vois New Yonji, tu y vois le sonatel. mais il y a une parce que qui dit une a 250 kits qui demandent. Nous avons dit que nous avons mais 250 kits, nous avons demandé que moi, qui expérience nous avons passé moins de 250 journalistes c'est-à-dire qu'on n'a jamais donné moins de 250 accréditations. Donc, ce qui veut dire que, à notre nombre boo xam ne soo programme bi déjà comité d'organisation peut pas retrouver un problème parce que nous avons noo koy de L'église les demander 250 bu ñu la 25 wala 50 ça pose problème. voilà tu vois le reportage diffusion également ouverture de bi mobile gis ci kay euh, la diffusion des reportages et émissions du Gamou va démarrer au moins une semaine avant le Gamou Nous, Gamou reportage hier, nous Nous premier jour mm. mais pas cinq jours avant Gamou là c'est un jours avant le Gamou jour pour jour nous ngi remercier soleil avant nous, nous nous avons fait depuis deux jours avons commencé euh, euh, reportage voilà rapidement ramassé là, monsieur le ministre euh, comité d'organisation Nous avons fait ñu camion ndox yi dama bi problème ministre problème te comme ravitaillement ndox mi ñoom ñoo ko jàng ñoo ci xam ñun cinquante lañ demandé ñoom ñu ne vingt mën na ko donte benn forage dafa paan kaw loolu dañ koy bàyyi ci seen responsabilité te wax na ñun en tant que comité organisation ñu ngi continuer di wax lañ doon wax.